ci li nga xamante ni rek euh, mën nañ kaa wax mooy que ni euh, lii di xale yi la fédération pencum Ndakaaru daal di leen coiffé kontaan nañu bu baax ci dalal liñ leen dalal fii ci mairie bi te loolu waa municipalité bi lañ ci euh, jaajëfal. ginnaaw loolu nag ñoom yi tamit ci li nga xamante ni moom mooy journée de l'enfant di 16 juin bi tàmbali nañu ko niki démb dem nag ca ndakaar am fa ay visite daal di bokk ak ñoom àndandoo ci ak ñoom. tàyyiwuñ ci benn yoon sébi ba Dakar am fa ay visite dellu si ci sébi kotaan foofu jag euh, centre socio collectif ba amal fa ab panel ni ki nooneex nag euh, tey jii ñu fas yéene continuer li nga xam ne moom mooy bëccëg bi ñëw fii ci mairie bi ndax nag amoon ab xaatim bu ñu war a jagleel maire bi waaye nag dañ koy mujjee yóbbuwaat ci centre socio collectif ba moom mu fas yéene fa euh, fekk fa xale yi xale yi daal di koy jox ci kanamu askan wépp kon boog euh, fofu mën naa wax ni ñoom ñi ngi leen di jaajëfal te li nga xam ni moom mooy thème ko ren gi di les droits de euh, de l' enfant dans l' environnement numérique ñoom seen àq ak yelleef yi ñu am ci lii di euh, buumu jokkoo yi moom lañ fas yéene tasaare am nañ yàqin ni tamit loolu buñ ko tasaaree buñ ko waxtaanee ñoom dinañ ci jëlee njariñ waaye tamit parents yi dinañ ci jëlee njariñ ci loolu ñuy profité waale di leen lancer walé ak message muy les parents parce que ñi ñëpp ce sont des enfants te nak ils sont protégés vulnérables qu'ils sont comme da fay jaadu bu baax ñuy voye waat ci ñom à ce que li di réseaux sociaux yeeg bu mu jokkooy ni ma ko mëna waxé waxee ñu koy xoolaat bu baax am leen di protéger encadrement bu ñu leen di défal euh di présenter wu nak man may Racky Ndiaye madame ndoy di premier adjoint maire Sébikotane euh, benen aspect bi moy ñëw rek muy euh, thème bi mu nekk thème bu am solo ndax euh, xam nañ ni actuellement nii numérique bi euh, am na xale yu muy defar mais am na xale yu muy yàq aussi euh, kon pour ñu débat ci aussi dafa am importance ñu teg ci taabal bi li ñu war a jël ak li nga xam ne dañ ko fa war a bàyyi ak loo xam ne waruñu ko laal sax war di ko xool te loolu dafa am importance ci éducation boo tëddee tëj sa bunt néeg nga di samay doom tëdd nañ fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci mbedd mi loolu mooy tekki lan ku nekk boo tëddee tëj sa bunt ne nga ni sama doom tëdd na fekk ubbi na Facebook ubbi na fu nekk kon nekkul ci biir kër gi moom mu ngi ci mbedd mi euh, kon euh, mu nekk thème bu ama am am am solo yaakaar naa dinañ fekk ci centre ba euh, débat yi nga xamante moom lañ ci war a amal di leen féliciter aussi moo nekk programme boo xamante ne wax dëgg yàlla programme bu am importance la euh, te ren Sébikotane moo recevoir euh, yeneen délégation yëpp di leen si félicité bu baax a baax di si félicité waa ADS euh, di félicité xale yi di leen wax ne pour ngeen jàng boobu message bu may lancé la xale yi yéen may dégg xale yi ma ne ngeen jàng bu baax actuellement il faut jang bu baakha baakha baakha baax moy tax sax nga mëna am daal waxuma jàngantu jàngantu yi de jang deug deug deug deug moy tax nga réussir mëna a egg mën egg fenn fi ndax jang dafa metti ñi jangalé tamit ah, yéné nañu xalé yi mais il faut que parents yi japp ci xalé yi japp ci enseignant bi japp ci réussite mëna am mais bu féké ben rek moy japp yeneen yi si des day xaw a sooxee day metti kon xale yi man maa leen di lancé boobu message ku nekk boo delloo fi nga jóge woon nga concentré wu bu baax a baax a baax si say étude ndax yéen la ñu yaakaar pour ëllëg yéen yéen a war a yor réew mi maa ngi seen fii ay inspecteur de police di fi seen ay commissaire de police di fi seen ay ay inspecteur de l'éducation di fi ay directeur d'école di fi ay enseignant di fi ay professeur université di fi ay médecin di fi seen lépp maa ngi leen di gis nii ci biir kon nag li ko réaliser méttiwul lenn rek moo koy réaliser mooy ngeen góorgóorlu ku si góorgóorlu rek sa mébét bi nga nekk xamante ni moom nga am yàlla dina la dimbali mu sotti kooku mooy message bi nga xamante ni man maa bëggoon jàllale leen ko Madame le sous-préfet de Diamniadio Monsieur le vice-président du conseil départemental de Rufusque, Monsieur le maire de la commune de Sébicotane, Mesdames, Messieurs, les chefs de services départementaux et locaux, Mesdames, Messieurs, les autorités administratives et coutumières, chers camarades enfants, distingués invités, bonjour. Permettez-moi à l'entente de mon propos de remercier mes pères, enfants et jeunes adolescents inscrit dans le programme de parrainage de Pinchoum Dakaro, qui m'offre l'honneur de m'exprimer devant cette auguste assemblée en ce jour important de célébration de la journée de l'enfant africain. La journée de l'enfant africain a été instituée en 1990 par les chefs d'État africains pour commémorer le sacrifice des enfants de Soweto, qui le 16 juin 1976 ont été massacrés par le régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud parce que ces enfants ont osé se mobiliser pour réclamer leur droit à l'éducation. 47 ans après. 47 ans après, qu'en est-il du droit des enfants dans notre pays Dans un monde de crises multiforme, crise sanitaire, crise économique, crise climatique, crise politique, les enfants sont les victimes oubliées, parfois invisibles, qui subissent les contre-coups sociaux de ces crises. Les enfants sont violentés dans le silence des chaumières, abusés et exploités dans les vacarmes de la rue, agressés et battus dans la peur de l'école, sans moyen de se défendre. Nous voulons plus d'amour et moins de violence, plus d'attention et moins de négligence, plus d'écoute et moins de maltraitance, car chaque enfant est un trésor à protéger, un avenir qui vous est confié et une fleur à placer dans les rives de vos cœurs pour s'abreuver du parfum de vos rires afin que jamais elle ne se fane. Nous demandons seulement, nous demandons seulement à vivre et à grandir dans une société de paix et de justice. Mesdames, Messieurs, le thème de la journée de l'enfant africain de cette année est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Ce thème est venu bien à propos, car le numérique à travers l'Internet et les réseaux sociaux est en train d'envahir nos vies. Les enfants et les jeunes sont en permanence connectés à un monde virtuel sans aucune arme pour se défendre. Internet est certes utile pour nous, pour nos études, pour informer et rencontrer d'autres personnes. Mais les dangers de l'Internet et des réseaux sociaux sont bien réels, surtout pour les enfants et les jeunes. Les enfants subissent des harcèlements à travers Internet. Ils font l'objet de moqueries dans les échanges sur les réseaux sociaux. Ils reçoivent parfois des images choquantes qui les perturbent psychologiquement et affectent leur scolarité. Les jeux en ligne sont en train de détruire des enfants qui sont devenus accros, les prédateurs sexuels et autres prédateurs en tout genre traquent les enfants sur Internet en tirant profit de leur innocence, en abusant de leur confiance et peut-être les inciter à les rencontrer en personne avec des conséquences très dangereuses. Il y a des collectes et diffusions d'informations privées. Les enfants ne connaissent pas encore les limites sociales, et ils publient parfois des informations personnelles sur les réseaux sociaux alors qu'elles ne devraient pas être visibles de tous. Les enfants reçoivent des liens qui les dirigent dans des sites malveillants, détenus par des cybercriminels qui collectent leurs informations personnelles pour les utiliser dans leurs arnaques. Face à ces problèmes liés à l'utilisation de l'Internet, nous, enfants de, la Fédération Penchum Nakaro, nous, enfants de Guédiawaye, nous, enfants de Camberin, de Dalifort, de Yof de Wakam, de Sebikotan, de Niag et de Rufusque, demandons aux autorités administratives, aux autorités communales et aux autorités coutumières et traditionnelles, à nos encadreurs et aux organisations de protection des enfants de mener des actions suivantes pour protéger les enfants en ligne. Faire de la protection des enfants en ligne un domaine d'intervention majeur dans les programmes publics pour les enfants, mettre en place des règles d'utilisation pour protéger les enfants sur Internet, faire une loi pour fixer l'âge de majorité numérique pour limiter l'accès à Internet aux petits-enfants, introduire dans les écoles des programmes de formation des enfants sur l'utilisation des réseaux sociaux, stimuler la créativité des enfants en les orientant sur des sites qu'ils doivent consulter, les parents doivent inciter leurs enfants à rester méfiants dans les réseaux sociaux car on ne peut pas connaître qui est caché derrière le pseudonyme. Limiter le temps d'utilisation d'Internet et les réseaux sociaux. Aider les enfants et jeunes à développer des activités positives sur Internet, e-commerce, création de contenu, recherche pour leurs études, participation à des rencontres positives. Mesdames et messieurs, dans, dans mon continent, l'Afrique, dans mon pays, le Sénégal, dans nos différentes communautés, des milliers d'enfants n'ont pas, pas les mêmes chances de réussite parce qu'ils n'ont pas accès aux services d'éducation de base de qualité. Des milliers d'enfants ont vu leur destin trahi par les maltraitances, l'exploitation sexuelle et les abus de toutes sortes exercés par les adultes en ligne. Le cyberharcèlement, la cyberintimidation, le dénigrement, l'extrémisme, euh, l'extrémisme violent, les risques liés à la dépendance, les risques liés à la dépendance aux jeux électroniques, ainsi que l'effet des écrans sur le développement cognitif des enfants. La célébration de la journée de l'enfant africain offre de nouvelles perspectives qui épousent les contours de nos espoirs pour un Sénégal où chaque enfant pourra réaliser pleinement tout son potentiel où les petits-enfants pourront vivre en bonne santé dans un environnement sécurisé, où tous les jeunes enfants auront accès à une éducation de qualité inclusive et sans discrimination, où Internet et les réseaux sociaux ne seront plus un danger, mais une opportunité pour chaque enfant de se développer de manière saine et de réaliser pleinement son rêve. Je vous remercie. Nous ngi madame euh, l'adjointe au sous-préfet de l'arrondissement de Diamniadio di monsieur le vice-président le premier vice-président du conseil départemental de Rufisque euh, mes adjoints au maire mes deux adjoints au maire madame Ndoye et madame Ndiaye Nous avons les délégués de quartier yi nga le président ou la coordonnatrice du CDPE e, je pense euh, euh madame Fall maa ngi koy nuyu bu mi CDPE e au niveau du département ñu ngi nuyu tamit euh, le président de Pentium Ndakaaru monsieur Djibril Ndour di nuyu euh, les chefs coutumiers yi nga xam ne tamit ñu ngi ci jataay bi imam yi nga xam ne ñu ngi fii ci jataay bi Euh, suñu yaay yi nga xam ne relais ak bajenu gox yi nga xam ne ñu ngi fii di nuyu invité yi mooy gan yi jóge feneen ñëw ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci Sébikotane en tant que maire di nuyu euh, bu baax a baax nag xale yi nga xam ne ñoom la ñu jagleel bés bi tey di nuyu tamit yéen journalistes yi nga xam ne yéen ay couvrir euh, événement bi donc sama kàddu xam naa dama koy xaw a tënk ndaxte programme bi ni mu demee ak naaj bi naaj bi dafa tàng te xam naa ne ñi fi toog tamit ku nekk am na yitte waaye di wax ne am na ñu mbégte bu rëy rëy e, ñëw bokk ak yéen bés bi di bés boo xam ne dañ ko jagleel xale yi xale yi Afrique muy le 16 juin depuis démb ngeen tàmbali ko tey ngeen ñëw di ko continuer te sànq président Djibi Ndour wax li waral bés bi ma tamit ma am xëj na li ma ci mën a apporté tamit comme témoignage ndaxte foofu ñu reye woon xale yi ca Soweto en 1976 yàlla def na il y a 10 ans en mars 2013 man demoon naa Afrique du Sud ma dem ba Soweto ba fi ñu tiiree xale yi ak ni ñu ko fobee ba frère am fob ko ànd ak sœuram ñuy daw deret bi di naaj man dem naa ba gis image yooyu ñu expliqué ma ni mu demee loolu ku ko dund di nga xam ne lu lu lu daw yaram amoon na foofu kon chef d'état africain yi bu ñu toogee ba gis ne lii war nañ ko jëmmal mu nekk bés boo xam ne dañuy fàttaliku loolu yaakaar naa ni juumuñu ah feet bi nag wala bés bi ak ñi leen ciy jàppale muy waa pencum ndakaaru gis nañu seen taxawaay fii ci daan ndaxte mu mu ngi ko doon wax sànq yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee xale yi fii gis nañ ko à chaque fois madame le maire madame Ndoye day bokk seen activité te daf may rendre compte yi ngeen def sa Sibirut ak yi ngeen def ci école yi ak yooyu yëpp macha allah gis nañu seen taxawaay ci wetu xale yi. ñun ñi jiite commune bi tamit ay parents lañu ñun jàpp nañu ñun ñooy parents xale yi Sébikotane yëpp ndax boo jiitee commune yow yaa njaboote ñëpp donc lépp lu nit defal xale yi Sébikotane rek jàpp nañ ne ñun ñi nga ko defal ndax ñun xëj na ñoo ñoo ko waroon def te amaana suñu kattan matewul pour ñu mën a defar lépp. kon pencum ndakaaru ak ADCS ak ay partenaire am yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci jàppale bi nga xam ne ñu ngi jàppale xale yi wan leen ne commune bi de taxaw na pour ànd ak yéen ci loolu commune bi dina ànd ak yéen taxaw pour gën a jàppale xale yi di wax xale yi ne seen mémorandum bi dégg nañ ko mémorandum bi nag ça interpelle tout le monde amaana euh, ñun ngeen ko jox en tant que autorité locale ak en tant que autorité administrative madame la préfet dina ko yeggee ñi mu ko war a yeggee waaye ku déglu mémorandum bi nga xam ne mémorandum bi ñëpp ñëpp lay interpellé ndaxte mu ngi interpellé ki mu njëkk a interpellé nag mooy parent bi ki nga xam ne mooy wayjuru xale bi nekk xale bi ci kër gi kooku la mémorandum bi njëkk a interpellé te loolu li ngeen théâtre fii sànq mu nekk théâtre bu am am solo yaakaar naa ne wane na loolu kon parents yi tamit nañu veiller ci xale yi bu baax a baax ci kër gi di leen surveiller par rapport ni ñuy utiliser internet internet nag kenn mënatu ko bloquer jamono bi ñu toll kenn mënatu tere kenn mu utiliser internet mais da ngay xool ni ngay fexee ba xale bi mu bañ cee loru yaakaar naa réflexion bi foofu la mais bu ñu tere xale utiliser internet lañ leen war a wan nan la ñuy utiliser internet parce que internet du ama am njariñ la sànq président ji bi mu ngi doon wax université bu Dakar jamono yi ñu toll cours en ligne moo leen ci mën a génne waaye fii ñu toog nii ci centre bi fii am na ñoo xam ne fii la ñuy ñëw di jàng si li nit ñi di jàng Dakar ak feneen ñu ngi koy jàng fii ci UVS loolu exemple bu ñu gën a jege la boo xam ne mën nañ ci firndeel njariñu internet ci jamono yi ñu toll donc internet lu am solo la nan la ñuy fexe nag ba xale yi di utiliser internet ci wàllum jàng lu leen di yokk xam-xam yaakaar naa ne question bi débat foofu la et eh, ñun ñu ngi xaar idée yi génnee fii boole ko ak mémorandum bi lépp loo xam ne war na commune bi incha allah dinañ ci taxaw pour que loolu mu mën a tegu ci yoon mën a jàppale xale yi ci mën a am accès internet ak gën leen a mën a encadré. donc damay commencé par nuyu kilifa yi fi toog yëpp muy kilifa diine yi di si njëkkee si nuyoo yi monsieur le maire moom mi nga xam ne ne moom mooy euh, njiitu dëkk bi kotaan fii ngeen defee tey activité bi nuyu waa conseil départemental.

mais ren li ñu jël thème bi laa bëgg a wax tuuti rek mooy les droits de l'enfant dans l'environnement numérique mooy li ñuy wax xarala yu bees yi xaralu bees yi nag mënuñoo dem sans ñoom ce n'est pas possible mais ku ci nekk da nga ciy def da nga ciy dem ak sa xel dem ci ak sa xalaat parce que lépp lu luñ fi indi rek pour lu baax la xëy na nit ñi ñoom ñoo koy utiliser neneen que tey jii nii xale yi nga xam ne ne particulièrement ñoom la ñuy waxal que internet bi ñu bañ cee nekk di def loo xam ne naka su dul loolu ba bu ëllëgee bu ko nit ñi yëgee ñoom ñu war cee mun a am gàcce ba mu jarar leen lu baree bare. parce que am na sax benn buñ ci buñ ci génne récemment mooy le body shaming bu ñuy def si internet bi xale yi dem dañuy dem ba di ci xaru te loolu du li nga xam ne loolu moom mooy ngëneel bi. li mooy bu tënk daal internet bi lu baax la su fekkee ne da nga koo utiliser à bon escient soo ko utiliser nag neneen noo xam ne nii du loolu moom moo tax bu jóg aussi safaan wa. xëy na say waajur dinañ ci dugg waaye yow yaa ciy jiitu te loo xam ne ne bu xasee ba dugg kenn dootu ko mënati dindi dafay dem dans la postérité mun na affecter say doom say sët say sëtaati sët parce que il suffit juste de mettre l'adresse pour que élément bi mën a génn ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax mémorandum bi nag élaboré ngeen ko jox ngeen ñu ko déglu nañ leen ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci mémorandum bi nga xam ne ñoom ngeen soxla a côté de vous

ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navétane yu gën a neex ci biir KMTV KMTV njëriñu waa Kër Mousse